ci wàllu teranga ndax xam ngeen ni lislaam dafa fonk teranga euh, loolu sëriñ bi euh, moom lay junj ci ci ci bernde yi nga xam ne moom la santaane ci màggal gi. loolu nag tax euh, ca jamono yi sëñ Moudou Moussa Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Abdoul Khadr sëriñ Saliou Cheikh Mamadou Amin moom moom moom sëriñ Fallou ak sëriñ Sidi Mokhtar yàlla na suñu borom yokk seen i leer ak. sëriñ Touba mii fi nekk di sëriñ Mountakha moom Cheikh Mamadou Bachir yàlla na ko fi suñu borom yàggal ti wéral ko loolu day doon loo xam ne comme ci agsi ci yow la nga ca war la la ca war ci ay taxawaay da nga koy taxawee ba mu mat sëkk bi nga xamee ne nag yàlla dogal na euh, Cheikh Mouhamadul euh, Amin moom Cheikh Mouhamadul Fadal toog te jël liggéey bi teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir dafa daal di dem ci bunti këri Serigne Touba yëpp fenn fu nekk mu tànn fa mu ñu ñu tànnal ko fa jëwriñ jafa nekk tànn ku ko doy boole ko ak moom ñu formé loo xam ne moom la moom la ñu tuddee comité d'organisation bi nga xam ne moo yore màggal li jëm ci bernde yi nag fi mu agsi fi mu toll nii day mel ne su fekkoon ne adduna dafa toog ci benn barab dañuy ma wax ne mu ne su ko weesu waaye adduna nag dafa toogut ci benn barab adduna day yokk day dox ba tax na at mu jot dana am ay ay ay ay ay xew ak ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay yokkute ci wàllu nit yu ci am yoo xam ne du ñàkk ñuy def ay amélioration du ñàkk ñuy def ay yokkute ci wàllu ci wàllu bernde yi kon bernde mbir la moo xam ne l'islam moo ko njëkk a santaane teral gan nag dafa doon lu metti ndax euh, doo séentu ci moom dara te loo baax la lu ne danga ko ko won da ko ko jox waaye itam la ci gën a màgg nag mooy euh, bi euh, ubbi sa xar kanam wan ko ne ko fii sa kër la te loolu mu di ko gis jamono ju ne. commission d'organisation dafa boole benn sous commission boo xam ne accueil hébergement et service la tudd accueil hébergement nag. Euh, dañ ciy ànd nun waa wilaaya yi ak euh, sunu mbokki euh, sunu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji ñuy waa Muxaddamatul Xidma ñoom lépp lu jëm ci wàllu gan gi ñëw ñu ñu ñu ko xam fi mu jóge seen nombre seen njiitul délégation ban heure lañ jóge fañ fañ ban heure lañ fi agsi nu ñu toll seet barab bañ leen di dalal waaye bu leen dalalee ba noppi nag la jëm ci wàllu la fay jëm ci ay ñam ak lu ñuy naan ak bernde yi ci aju loolu nun waa wilaaya noo ko yore jamono yi ñu toll nag gan ñi ñuy am ñi ngi dal ci barab bii di résidence Cheikhul Khadim gi ci jumaa ji ak résidence Cheikhul Khadim bee ca Darou Manane waaw ñaari barab yooyu fi la fi la gan ñi dal daaw nag euh, bi ñu seetee euh, gan ñi ni ñu toll muy euh, këri diine yi suñ ko waxee mooy tarixa yi association islamique yi waaw yooyu yëpp dañ leen di daral délégation yu bari lay doon waaye danañ toll ci daaw toll nañ ci huit cent vingt six personnes gan ñi nag du ñu ñëwandoo. waaw ñëw ndoo maanaam dañuy wax ne nun sunu liggéey mi ngi tàmbali 15 safar fukki fan ak juróom ci safar fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom ñett ba fukki fan ak juróom ñeent bu ñu joxee rek ba xëy joxe ndekki eh, buñ buñ buñ màggalee ba ci gannaaw suba sax la sunub liggéey di jeex juróomi fan eh, la ñuy la ñuy yore gan ñooñu am na ñoo xam ne le 15 la ñuy ñëw am na ñoo xam ne le 16 la ñuy ñëw eh, am na ñoo xam ne le 17 la ñuy ñëw am na ñoo xam ne bisu màggal gi la ñuy ñëw am na ñoo xam ne ñi ci ëpp nag ci ñiy ñëw ci bu buñ màggalee ba ci suba si moom mën nañ ne ñu néew lañ bu fekkee ne am na sax waaw xëy na délégation yi euh, officielle bi ñooy ñëw buñu màggalee ba ci suba sa te ñooñu tamit euh, ñeneen ñoo leen di toppatoo waa Hizbut Tarqiyyah ñoo leen di toppatoo euh, waxtu woo xamee ne di leen defal fi ab bu mag a waaw budget bi nag ni mu tolloon am na ci lu nu mën a wax noonu lu jëm ci poulet lu jëm ci boisson lu jëm ci fruit ak lu jëm ci xar loolu jaaru ci suñ loxo dañ koo jënd jox le budget est magle, il de 100 millions. C'est ce Lolou je veux 595 moutons, ci 5 jours, ils ko. 3 3400 euh, poulets. Avec 3400 poulets. 595 moutons 3400 poulets, ils ont 5 jours. Donc, c'est ce que je te te te les chariots, les chariots, 80 000, les chariots, 70 000. Donc, si c'était 595 moutons, il y a beaucoup de Euh, boo seetee fruit bi tamit ni muy toll ay pied trois cent quinze ci pomme ay trois cent quinze ci orange ay cent euh, cinquante wala soixante quinze yooyu boo ko seetee lim bu bari lay doon yooyu yëpp ne dafa jaarul ci suñ loxo waaye nu lu jaar ci suñ loxo mooy dépense yi nga xam ne moo jëm ci wàllu wàllu ornement maanaam yi nga xam ne jigéen ñi lañ koy jox ñu dem duggi li jëm ci wàllu waañ yi tamit am nañ lu mat juróom-ñaari waañ yoo xam ne dafa tasaaroo ci biir dëkk bi dañoo am ay oto yoo xam ne itam waañ wu nekk li li ngay xëy di togg par bis ci añ ak reer ci ay palaa moo xam ceeb la moo xam cere la moo xam palaati ganaar la moo xam palaati xar la yooyu yëpp li nga ci xëy togg par bis dañ koy xam dafa am oto oto yu leen distri ñu leen booleel yoo xam ne ñooy jëli añ yi di delloo bool yi di jëli reer yi di delloo bool yi am ay nit ñu ca ne am ñoo xam ne ndawal gi bu ñëwee abattoir lañ ko yóbbu fa la ñuy reyee ndax lépp dañoo bëgg dëppoo ak ak euh, hygiène bi lépp mat norme yi ganaar yi bu ñëwee fa lañ ko yóbbu par bis waañ wu ne la nga soxla ci ganaar la nga soxla ci xar xam nañ ko am nañu ko yore ñoo xam ne ñoo ñoo ko jëli di ko yóbbu ci waañ yi te wenn waañ du manqué loolu par guddi lañ koy def nga xam ne ku ñu xëy guddi gu ne bala bala bala bala bala balaa bëti set danañ la indil ganaar yi sa ganaar yi añ ak sa xari añ ak sa ganaar reer ak sa xari reer fi safar